grave que l'article 56 du Code pénal punit sans raison. Mais je vois que vous êtes condamné pour avoir accusé cette grande nation qu'est la France de trahison, autrement dit d'avoir porté les armes contre le Sénégal pendant que le Sénégal se sacrifie pour la France. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense Au porteur de pancartes, je veux dire ceci.

Souviens-toi des années passées, la France a débarqué pour demander des alliés À ses côtés, puisqu'elle était trop faible face à cette puissance, elle a pu chanter sa musique classique à la pour cela la critique La France j'ai eu sphère de sur malheur. Notre grand père voulait dire à y dans la guerre, rien pour aller vers cette terre en France, frousse. Un en enfer pour les petits fils de ces tyrans.

Alors que tu as volé à vie le premier, il est le traiter pour me, je m'en rappelle à l'heure de premier. 143, 144, la race a été exploité. Nous qui fait comme des soins. Faut que ça cesse, on plus besoin de la soin. Dans nos coins, au plus profond de nos coin, nous sommes tués nos grands-pères, nos grands frères, Voyager dans les airs, atterrir dans notre atmosphère. Quand de et ceux qui doivent nous défendre, le les banques de Suisse, pour avec quoi ils sont devenu plus des les ça

Combien de les français la te disant Paris, va arrêter la France en Français. Mais maintenant, Paris, tu reviens à qui la faute À Digo, à Prési, à nos parents, vient à toi, mon frère. Il faut qu'on s'organise, que le système soit carré. Pour que nous barrer, c'est ton carré. Si t'as le temps de penser, c'est parce que t'as pas le temps de penser, ouais. Arrête d'essayer de vidéos autant, les seulement si tu la femme. Avec on politiques, c'est ces qu'ils sont ont défendu. Sans cela, la France sera pas en français. La France sera en français, mais d'ici allemand, je suis pas raciste, on pour sera asalaamaaleykum wa rahmatulah taala barakaatu ñu ngi ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen ziar di leen màggal di leen ndamoo di leen tiitaroo di leen bëggee euh, sama gaay euh, di leen fàttali rek ku ci nekk ci ñun li nga signé woon ak gor gi. li nga signé won ak garmi bi moy and ñi and ci lu neex tay suñu nit nek ci nakar nek ci khat khat ñu wara mëna baña nek ci lenen lu diko xalat ko ko ñaanal waye tam di xol yenn pexé yu ñu wara mëna def pour génné ko fu mu nek yaakaar lool moy andu gor lool moy garmi suñu waji nak ku len wax ni sonul len di nax de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 di daj otom diko ko diko dello diko pompe à gaz diko nangu ay bagasam, diko toroxal diko lepp lu mu daj sama gaay ko ku ko sa baye dajon fi di nga xol lenen loy def lulul bagn ko setan ci loxo ñi nga xamni ñoko tek nakar tis naqar bobu nonu nga xamni dañu jog pour ray ko lutax ma ne len Ousmane na dama len di wax barki alquran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 depuis pas mal de temps une grève de la faim Ken waxatu ko perdu coowatu nangam et il avait perdu connaissance Il ñu a ay soxnaam ñu jël auto daw dem a jiko. ay connaissance dans le coma un malaise mon grève de la faim lu qui ki nga xamni moko fa teg lijeenti wuko faale wuko muy Macky Sall xaar ñu Ousmane Il def nako fi plus de tant de jours yo xamni Ousmane mi ngi dans le coma ci hôpital yi sonn lolu état muy état bandi état policier bo xamni seen nekku ci faale wuñ lan moy responsabilité yor nu doomu Il diko ko comme kuy ballon wala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 Ousmane mi ngi len di accélérer avant mo dan dans le coma ñetti fan yépp Ousmane ngi len di accélérer nan docteur bi gaawal ngeen delloo ma ci kasso bi moma gënal comme nit yi mënuñu ko fa génne Ousmane son na nak lu wax ni man man bu dëgg rek lay wax bu ma gisoon li dañuy lu ñu wax ni faux la damay ñëw né lan ñi ngi jouer dé loolu amul wala nangam parce que man dëgg moma ñor Ousmane ni ni ni dafa daanu dafa malaise dafa sonnu té loolu ay kàddu docteur moma ko wax man.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 projet bi mënu ko développer parce que xam hôpital hôpital lal bu ndaw la télé bu bu euh, instant urgence urgence kasso bi lañ ko ubbil mom rek ka fa du urgence yi urgence dañ ko fa def rek ka fa gisul kenn matin midi soir lal matin midi soir même fa joxe ngay lekk sax xana xaj fenn sax nga libéré ko mu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 ci ku doon tam di entraîner ci ku doon tam di dox ku doon tam di nga japp ko ku doon tam di utiliser ay xalam ku doon tam di nek di bind ay projet di tek ku doon tam di analyser ku doon nga jep ko tej ko ci lalu hôpital motax Macky Sall musul jema juk ne da koy jëlee. te mo a jëlee bu mbaay grève de la faim bi gisoo ngeen journée nan Macky Sall mi ngi koy waajal delo delo ko dé parce que dafa laaj ay renseignement ñu ne ko fi la gëna metté ci té mom luy toroxal rek lay wër. Macky Sall musul yeewu ci bëgg lu neex Ousmane Sonko lu koy toroxal rek lay wër booy bi dinaa ko écrasé booy bi dinaa ko won ni maa ko bu doole rek la Macky Sall di wax. moom addunaam moom kenn la bañ ci addunaam koo xam ni bu sañoon bu yeewoo dégg ni faatu na Ousmane Sonko amul keneen amul keneen te yéen xam ngeen kooku ci en yéen xam ngeen Macky Sall ci en buy fayantoo gis ngeen nu fi def Karim Wade fayanto bu ñaaw la ko def dóor ko ci kaso bi quatre ans toroxal ko ba mu ne tott baayam ñëw na fa benn yoon yaayam dafa ñëw di mu koy toroxal ba mu ne tot jël ko dugal ci avion négocier do dax ko ci bitim réew Khalifa Sall mu tëj ko fa yaayam de di jooy di jooy di jooy doomam ba faatu Macky Sall libéré wul kii bi te dafa dem bu Khalifa Sall génnee dafa dem di ko jaale ci te ki koy jaale moo ko tëjoon ci biir kaso bi yaayam bu muy jooy moom mi ngi ko tëj ci biir kaso bi ba yaayam sonnee loolu lott feebar mu ngi tëj Khalifa Sall ci biir kaso bi ba yaayam faatu ba seetlu kuy mu bàyyi noonu ba Khalifa Sall génn muy doog a dem naan da koy jaale dëmm rey la jaale la lekk sa rongo ñu maam kon yéen xam ngeen Macky Sall bu bon la nit bu soor la nit bu am en te nag ñooñu noonu jàpp leen ni en bu ndaw la amoon ci ñoom lu mu en bu mu am ci Ousmane Sonko montagne la wute nag ñi nga xam ne ñii ma wax ni en bu ndaw la am ci ñoom en bu gën a rëy ci Macky Sall mi ngi koy woon Ousmane Sonko bu yeewoo xaaru lu dul ñu ne ko dee na waa ji dee na nu mu gën a méttee mi ngi ko koy teg nu mu gën a méttee rek mi ngi ko koy jéem a mi ngi ko koy teg mi ngi koy jox doole yëpp mi ngi koy jox ma en bu mu ko gardel yëpp bu ne booy bi daf ma bëgg booy bi daf ma bëgg fu nekki dafa mel ni dañ ko jox affaire bi sur la plat mu ne xaaral ma lekk booy bi parce que moom nu mu am en ci booy moom pour moom ñeneen ñi sax day jàpp ay kii la ñu ak yooyu mais parce que xam na jot na xamante Karim Wade jot nañ liggéey jot nañ nekk ci gouvernement xam na xalifa Sall nag mais moom dafa jàpp ne Ousmane Sonko ab booy la bu koy dafa jàpp ne moom Ousmane Sonko ab bu koy défier la booy bu koy jéem léegi moom bo en boobu dafa mi ngi ni benn booy bu nekk ci koñ rek nga naan booy bi dama koy lekk booy bi nanga ba bu en bu muy am noonu noonu la Macky Sall am ci Ousmane Sonko. te di ko ko woon ñu jël Ousmane Sonko mel ni dañ koo bàyyee Macky Sall jël mel ni dañ koo may Macky Sall da ko jëlal jëlal waa ji mel ni ñu bëggatuñ dara ci Ousmane Sonko du marche du manifestation du rassemblement du défier l'autorité publique ne dañuy dem marche moomoo ñu mënooñu yaa rien dafa mel ni dañ ko ko dañ ko ko tayle na ko am waa ji def ci lu moo tax waa ji tam hésité wul di ci def lu mu mën mi ngi koy toroxal alaaj ba las ba las ba jaxanama ba buntu jaxanama mi ngi koy toroxal ba yóbbu ko buntu jaxanama amul man de ci moom te mi marqué bi ñu ko def léegi yëpp Sénégal kenn waxu kenn yëyul kenn yàbbiwul ah mais waa ji day kontaan danaan kon kay mi ngi nice parce que waa ji malgré que li ma koy def yëpp li ma koy def yëpp mi ngi mi ngi continuer kenn waxul ci dëkk du xalif généraux du peuple du amul manifestation amul dara tous rien nada te Ousmane gore na fetu xeetu gore boo xam ni du jaay mukk ngoram du musa jaay ngoram laaj leen ñi demoon naan dañuy wax ak Ousmane waxoon naa leen ni négociation boobu noonu ak xalif général bi fu mu mujjee te waxoon naa leen ko ne leen xalif général bi waxoon na Ousmane Sonko na arrêté grève de la faim bi mu jéem nu mu génnee ne dañuy yónni ay nit yu dem pour wax ak Ousmane Sonko pour Ousmane Sonko bàyyi grève de la faim bi après ñu négocier nan la génnee génn boobu noonu lan la àndal mooy genre contrat dinañ la génne mais da ngay wax waxi live waxi politique waxi mouvement. waxi association waxi sénégalais waxi patriotisme ngeen foog ne Ousmane Sonko dina bàyyi la Ousmane Sonko ne leen man benn kàddu la am ba ngeen ma waxee bàyyil bàyyi naa ngeen yéen man yéen mun naa leen jox contrat comme quoi que sama liberté ma génn après noppi du ma wax ak nit yi du ma wax du ma def dara mais loolu j'existe plus kooku amul liberté dangeen ngeen maa bàyyi may taxawaal ma ak xar yeeyam parce que man may politicien di di ay mit yu am yaakaar ci man topp ma ngeen ne man ma dellu sama kër. bàyyi live bàyyi wax ak askan wi bàyyi génn bàyyi maat bàyyi de sama politique mais kooku mooy dee je reste ici je ñooñu dem waxaat ko sëñ bi ne ko ah, waa ji nee na moom <laughs> du génn noonu ci noonu génn jaralu ko ko génn boo xam ni day dem fële toog fu mu toog du wax du wax ak nitam du def dara kon ko loolu ak dee yam kooku nekkatul sax liberté dee la donc loolu moo tax gisu leen après grève de la faim bi Ousmane Sonko ñëwaat parce que li ñu ko waxoon defuñu ko bàyyil ñu génn la génnewuñ ko te Macky Sall loolu leen wax ah, bu mu ko génnee na noppi na na noppi na tëj gémmiñam du waxati na dee politiquement na seey ma mun a def lu ma war a def mais loolu Ousmane Sonko dina ko nangu ma dama xamoon naa ni négociation boobu du sotti parce que Ousmane Sonko doful dof boo xam ne ñëw naan ko ma génne la nga génn noonu rek pour mu mun a gis sa njaboot mais dootoo waxati dootoo yëy dootoo yàbbi dootoo wax ci politique doo Ousmane Sonko nan dana nangu ngeen foog mu lànk ñu ñu bàyyiwaat ko fa moo tax déggaatoo léegi xalif bu ci wax sëriñ bu ci wax dara fàtte nañ ko fa parce que lañ ko bëggoon def loo dafa lànk ñu ñu ñu zappe ko ñu zappe ko comme yàq bu naqari ne ko ba pare Macky Sall ñëw ci màggal gi boo leen dégloo Macky Sall discours bu mu yore ci xalif général bi nu mu wax déglu leen bu baax doofu leen jën a jàpp leen daf ko xamal ne ko ci biir science que Ousmane Sonko mooy pyromane bi mooy nit bu fitna bi mooy taal dëkk bi moo bugg a taal Touba ak ay nitam ñoo taal senegal ñoo tax nit yi dee ñoom lañ rey léegi waajooju lañ neutraliser téye ko tënk ko dëkk bi salaw muy loo xalif yi ne dina won ni gis ngeen dëkk nu mu selawee buñ ko fi bàyyee muy wax di def ay live di kaas yooyu booy di génn di taal di lakk di dee di nangam nangam ñoo ko fenal de Ousmane Sonko lañ fenal ci xaalis ci xaalis généraux yi donc buñ jàppee waajooju noonu piromaan boobu dëkk bi nee na salaw dëkk bi nee na calme xeex amatul dara amatul bu bëggu leen lii gars yi ñu ne ko ñu ne ko waaw kay lii la ñuy wër mu ah, waaw mi ngi noonu kon bu ma ko bàyyee tey bu génnaan rek dëkk bi tàkkaat de te bëggu leen dëkk bi tàkk te bu nit dañuy taal Touba de dañuy taal dañuy taal Euh, lu mu tuddee Tiwaawoon de dañuy taal Kaolack de dañuy taal xale fi ne waawoon ko amul problème moo tax ñu fàtte ko parce que Macky Sall daf leen fanal ci xalif si dafa fanal Ousmane Sonko ci xalif généraux yi gëm loolu leen ni Ousmane mooy taal dëkk bi mooy taalu dëkk bi ak ay nitam buñ ko jàppee la dëkk bi arrêté tàkk la arrêté nanga ñoom ñëpp xam ni comme jàmm la ñuy wër ñoom ñëpp ñu ne waa kon amul problème ñu génn seen loxo ñoom waxatuñ ci dégg ko benn xalif bu ciy wax jamono ji ni ngi ne tekk ba pare loolu peuple bi war a bañ loolu mais xalif yi ne tekk selaw peuple bi ànd ak ñoom selaw ñëpp ne selaw Ousmane Sonko nag Macky Sall continuer di xeex ak moom bàyyi ko de malgré que xalif yi ne nañ selaw dëkk bi ne selaw ñu mel ni dañoo tayle Ousmane Sonko ci loxoy Macky Sall Macky Sall tam di xeex ak moom ñu ngi ko gën a tooxale chaque jour mi ngi woote di laajte ñaan ko waaj son sonn na de waa ji mi ngi jóg day jóg di toog rek day jóg di toog di kii bu ñu ko indi lay lekk bu mu bàyyi grève de la faim day lekk ñaari kuddu ñett amatul di état psychologique am sax dañ koy raconté Macky Sall parce que alxuraan am sax dañ koy nettali Macky Sall amul Sonko suba bu guddi bu muy yeewu te duñ jot rapport Macky Sall du jot rapport te bu mu yeewoo waa ji dafa naqari dara de te waxul ak kenn lépp lay jot lépp lay jot ay dafa mer tey xol bi neexul tey waxul ak kenn tey ni nangam tey lépp lay jot loolu mais loolu dafa neex Macky sàll day kontaan parce que dana ah das cool kon tey tey naqar na tey kiiw mais na est imagine la ñu tëj nit cinquante jours sa néeg yow sa néeg tëjal sa bopp cinquante jours sa néeg ñu lay dugal ceeb di la dugal añ di la dugal reer waxuma grève dalaa la faim de dama ne yow rek tëjal sa néeg nga toog fa cinquante jours si sa lal wàcc toog cinquante jours barke alxuraan da ngay dajji buntu bi Ousmane Sonko du nit de ku kuñ ko def nga dajji buntu man des fois damay toog ni di science naa mais Ousmane du dajji buntu bi xeex ak ñoom même bu ne Ousmane xeex naa ñoom sax ñu reyante ñu tee benn yoon wala mu ñu au moins Sénégal yi mun a génn au moins ñu ne Sonko de tey da doon dóorante garde corps yi wala da doon dóorante garde pénitentiaire wala da doon dóorante gars parce que mais loolu da ngay craqué.

da wax ni dama bëgg a dellu si kaso bi dama bëgg a dellu ci kaso bi parce que fii kaso la mais fii kaso bu gën a metti la fii kaso bu boo xam day atteint day atteindre psychologiquement mentalement fépp la lay laal ab lal hôpital rek nga toog rek doo kenn du la recevoir doo recevoir say gan doo def sport doo def ay épreuve physique doo doo chercher équilibre mental doo génn doo dox ci air bi waaye Ousmane lépp la ñàkk génnul ci air bi nokki génnul ci air bi nokki gisul ay nitam ay xaritam ak ay genn wàllam gisu leen Ousmane mi ngi ci biir néeg bi di jóg ko daan di jóg ko toog di jóg ko toog di jóg cinquante jours mais sama gars yi benn instant dafa mel ni ñun dañoo tayle Ousmane Sonko ci loxoy makki sàll Macky sàll di ko atteindre psychologiquement malgré que Ousmane jàmbaar la rek laa lox jàmbaar ko kuñ ko defoon nga dof wallaay man buñ ma ko defoon tàkk naa bu yàgg pété les plombs loolu la ñu woowee pété les plombs ma ko defoon pété naa les plombs damay jóg commencé dóorante garde yi ndem defuñu ma dara ne leen da ngeen may bàyyi wala ngeen daloo ma ci kaso fële au moins am naa cour kaso am na cour am na cour récréation di nga gis di nga gis euh, prisonniers yi di nga dox dajanteeg benn Abdou Karim Gueye di nga dox dajanteeg benn Cheikh Omar Diagne ngeen waxtaan mun nga dox dajanteeg benn comme killa bi fe newoon ay kilo naka mun ngeen taxaw waxtaan kaso am na loolu am na nga gis ay nit di waxtaan di recevoir ay nit yéen ñii ñëpp mun ngeen dem après kaso bu leen Ousmane Sonko nangulee rek mun ngeen dem suba seeti ko dem seeti ko bu boobaa partem dinañ ko seeti kañ lañ nga gis Ousmane Sonko partem kañ lañ nga gis Ousmane kenn gisu ci Ousmane Sonko kenn à ay jabaram a kenn bu boobaa Ousmane bu demoon ci kaso ba ay nitam dinañ ko gis ay waa partem nañ fa dem di waxtaan moom mais Macky Sall bëggul sax contact Ousmane Sonko ak waa partem te sénégalais bàyyiwuñ ci xel. tant que mi ci hôpital boobu Macky Ousmane Sonko du mën a toog ak ak waa parti di waxtaan bu dee kaso ba dina ko am moo tax Macky Sall intelligent ki lay di dox ci xelu sénégalais yi nangul bàyyi Ousmane Sonko dem ci kaso bi mu téye ko foofu naan waaye docteur bi nee na wéragul docteur bi nee na deful nii docteur bi nee na parce que dafa xam ne bu demee ci kaso bi nit yi commencé ko fekk si te nit yi bu ñu la fekk seer ak jox lañ seen xalaat jox la sa xalaat xalaat nit bu ñu fekk see partagé ak yow say peine ni ñi la fekk see rek partager ak yow say frustration ni ñi la fekk see rek jox la seen i idée ni ñi vous la fekk see rek am leneen lu yok ci yow parce que yow kessé xel xel du doy mais bu nit yi commencé ñëw di la seet di la jox seen cette idée seen idéologique seen nangam nag am na lu lay yok même buñ la bëggon wañi sax dafa am lu yokkeeku. li Macky di def Ousmane Sonko dafa ko Karim Karim Wade jëlu ko diko ko ci ay ci ay hôpital té Karim Wade grève de la fin fi. Karim Wade grève de la faim na fi Macky Sall jëlu ko fàtte ko ci ay hôpital tëj ko fa fàtte ko fa. keneen a keneen def na ko Macky am na ñoo xam tëju leen fa fàtte leen lan moo tax ñu bugg ko bàyyeeg Ousmane Sonko lan moo tax ñu bugg ko bàyyeeg Ousmane Sonko mu koy exploité moom ci un champ mu koy exploité ñu toog rek fu ñu teg. teg fi rek justice bi muy foyee gars justice bi moom mu ngi mi ngi yeewu suba ngoon guddeeg bëccëg di lijjanti ni muy jàpp Ousmane Sonko di ko terroriser. di ko terroriser mentalement ñu koy indil ay nopp mu terroriser ko mentalement psychologiquement tëj ko ci benn pantere bàyyi ko ñaari garde bàyyee ko machine kañ la Ousmane Sonko gëj a gis ay nit yu fa dugg bu njëkk ba doon na gis sax ay di doon na fi dégg ay Cheikh euh, Cheikh Baara Ndiaye ndem doon kii bu njëkk ba doon na gis Cheikh Baara Ndiaye à bu njëkk ba doon na gis Hannibal Djim au moins boo leen bokkee feebar sax. même boo leen nuuralee fekk ba da ngeen gisante bu sama biir di métti sa biir di métti ñu xoolante nii sax au moins dinaa am benn ne man maa ngi dund. Cheikh Bara Ndiaye ba lëf bu mu fa jógee Hannibal Djim jóge fa Ousmane Sonko tundum moo nekk ci cabinet cabine boobu moom rek fa mais dafa métti métti na barke alx na bopp non Ousmane jàmbaar la laa ilaha illallah li Ousmane di dund gor bu ko dundoon faatu wala nga jéem a xaru sax parce que lii du jàmm quoi ñu jàpp doomu aadama jël ko ci ay njabootam dugal ko ci kaso tëj ko ci biir ab lalu hôpital à deux deux mètres carrés ñu tëj la fa yow kese gisoo nit gisoo ta sa jabar kese jabaram yi sànq dañoo taw dañ leen woo d'urgence docteur yi leen woo d'urgence da jabar yi dañoo taw ñëw bu mu commencé daanu dans le malaise ni xàmmeetul ba ñu ba daanu gaa yi jël ko tëral mu sonn lool lot jabara bi dañ leen woo d'urgence ñu daw ñëw ña nga fa woon sànq ba ñu ba ma docteur bi naan ma mi ngi dafa dafa daan dans le malaise il n'est pas réactif il n'est pas pour l'instant il n'est pas réactif maanaam mënu def ay réaction mënu def ay bougement mais c'est incroyable c'est incroyable li Ousmane Sonko di dund nii bépp gor laa la bu nekk Sénégal seetaan ko waxoo ci doo gor doo gor doo nit parce que nit mënuñu ko di defee defin gu ñaaw gi Macky di ko def ay ponkal nekk Sénégal ñu naan leen ay kilifa lañ ñu naan leen ñii dañu leen war a déglu ñu naan leen ñii dañu leen war a respecté ñu gis doomu aadama waxuma yàlla waxuma yonentu doomu aadama jàpp doomu aadama di ko toroxal ba ne tort di ko tëj ci ay lalu hôpital di ko fa enfermé mu psychologiquement di ko perte loolu du gis njabootam du gis ay mbokkam du gis ay xaritam téye ko fa ay nit toog ci dëkk bi naan ay ñoom ay responsable lañ ay kilifa lañ dañ la di déglu mais ñoo ñoo sama ne ku yaakaar ñooñu laa la wax boo duggee bàmmeel fa gis barke alxuraan ñu la mënul taxaw fii ci saar nii ci baatin duñ la taxaw feneen buñ la waxee dañuy dañ lay gëlëmal de boo duggee sa bàmmeel ba ñu ne man rabu ko di nga xam ba xam waa ji dina du yëg sax ne yaa ñu naan man rabu ko boo duggee sa bàmmeel bañ naan la man na biyu ko wallaahi du ko yëg sax bu ñu ndulli sa maam di xam ni kooku dalaa nax àdduna yëpp la nax ñoo xam ne mënuñu la taxaw fii ci àdduna duñu yëy yàbbi ci li Macky di def doomu aadama yi nu muy toroxalee doomu aadama yi duñ ci yëy yàbbi amuñu waaje respecté leen sax amuñu benn kàddu bu ñu mën a waxee bàyyil waaji mu bàyyi ko faalewu leen amu leen joxu leen cër joxu leen cër du leen déglu lijjantiwu leen amul benn respect ñoom donc sama gars yi nee naa leen loo ëpp tuur mbir mbir day doy day jeex ju koy jeexal nag moom mooy jóg xeex moo koy jeexal mu xanaa ñun tooguñu di xaar ñu ne Ousmane ko dee na usmaan Sonko nee naa leen gor la garmi la bu ñu ànd ak moom ne dañuy xeex la ñu seq moom ba léegi mus ñoo trahir daf nañu résistance mi ngi résister bu nekkee ci mbedd mi mi ngi résister ñu jàpp ko mu tëj ko ci biir këram muy résister ñu dugal ko ci kaso bi muy grève de la faim di résister di daanu dans le di jóg di xafe xippi di résister ay kilifa ñëw ne ko bàyyil ñu régler ko mënuñu ko régler parce que kuñ ko bëgg a régler Macky Sall opportuniste la bandi la lépp da koy def ci ay magu ak mafia faale wu leen wu leen nee na ay ay ki simple lañ ay citoyen simple lañ loolu moom moo ko ay citoyen simple lañ duñ dara nangu seen passeport diplomatique yi dàq leen nangu seen passeport nangu seen oto na ne ñi ay citoyen simple lañ loolu Macky Sall la ko fi def tey jii mi jàpp doomu aadama di ko terroriser senegal toog di seetaan parce que toog di seetaan weesuwul ñun tam ñu toog fu ñu toog defuñu benn réaction waaye Sénégal ma laaj leen dara ma laaj leen dara kañ ngeen gëj a yëngu yéen waaye yéen xanaa Macky Sall di ab yàlla la dëkk lëmb am góor jigéen mag ndaw pa mère ab ji am 63 ans kidnappé dëkk lëmb papa ñi ma wul jóg yaay ñi ma wul jóg doom ñi ma wul jóg góor ñi ma wul jóg rakk ñi wul jóg mu ne kenn du yëngu ci dëkk bi ku yëngu ma tëngal sama am dëkk bi ne selaw kenn du fi marche kenn du fi rassemblé wu kenn du fi dajaloo kenn du fi wax toog leen ñëpp ne fermé la gueule ñu dëkku lëmb dëkku lëmb mu jël dëkk bi yëpp def leen prison dëkk bi prison la kenn du wax muy njaaba njalle ànd ak kii mu premier ministre am naan day def ay tournée dans le nord di taxawaalu di wëndaalu keneen ku fa def cortège mu ñëpp sa gis ngeen ko di dëgg seen maam di téye ay ñoom di arrêté seen cortège yi di leen delloo di leen dóori lacrymogène te te te xanaa yëgu leen lu xew ñoom Khalifa Sall naa ko la ne nee naa leen ngeen ngeen dem dellu seen pooju nday fii man maa fi yëngu maa moom dëkk bi man rek maa am droit dox ak samay nit kenn du fi dox kenn du fi def marche kenn du fi def rassemblement maa ko tere man dëkk bi na salaw gàkku bu mu génnee ñu dàq ko mu delluwaat Xalifa Sall génn ñu dàq ko ñoom ñu ngi taxawaalu te ñii xanaa ñii seen maam yi dañ fay liggéey lu ñu fa amul ñun xanaa ñii seen yi dañ fi def lu ñu yëgul ñun xanaa ñii seen maam yi ñoo moomoon suñu maam yi ba seen sët yi jàpp ñu ñun ñun dañuy takk buum ak dëkk lëmb plus de trois mois mënuñu yëngu 150 demandes de de de marche de rassemblement rejetées nous bi ne salaw ñu jàpp ab gor dugal ci ay kaso di ko toroxal di ko daj lu ne dëkk bi mënuñu yëngu mais la y'a problème là mais lan la bu fekkee yàlla la ngeen ñu ni kii la xanaa yàlla sax joxu leen ko cër bi ndax da leen di tere ngeen di def bàyyi leen njaaloo ngeen am ay iri di njaaloo yàlla sax da leen di tere ngeen di def kii di leen tere yéen ngeen ne doo leen def. mais kon kii moo moo moo gën a am représentativité yàlla sax Sénégal yàlla na leen bàyyi leen fen ngeen nañu continuer di fen ñuy fen a ngi fen ba léegi bàyyi leen njaalo ngeen ni njaaloo waa ji taxaw na leen hey doo leen fi marche ngeen na tekk doo leen fi rassemble ngeen na tekk doo leen fi wax ngeen na tekk doo leen fi dox ngeen na tekk Ousmane Sonko du fi wuti parrainage ngeen na tekk dëkk lëmb dëkk lëmb waaye mais dëkk bi ban problème la am yéen mais ana gor yu yi ana doomu gor yeeg doomu garmi yi mais waa ji lan lan lan la def yi bañ ragal ko nii lan la mais fii dama ne àdduna hôpital kaso bàmmeel moo fi am hôpital moo fi am kaso ak bàmmeel ku fii yàlla bind ne di nga jaar ci hopital balaa ngaa jaar ci bàmmeel di nga jaar ci hôpital balaa ngaa ci bàmmeel ku fi yàlla ne sa dund di nga jaar ci kaso après jaar ci hôpital jaar ci bàmmel allah kulli al di nga jaar ci kaso hôpital ak bàmmel lépp yàllaa ko bind fii lu ñu daw lan la ñuy daw bay daanu lan la ñuy daw bay mbëkku lan la ñuy daw hôpital lan la ñuy daw kaso lan la ñuy daw bàmmel nit daw na fi opital ba daanu ci dee ñu delloo ñu yóbbu ko hôpital nit daw na hôpital di daw di daw ba daanu dee ñu duggal ko hôpital ci morgue ba nit daw na fi kaso daw fi kaso kaso ba dóor nit wala mbéj nit wala bu max nit nit ki daanu de mu dugg ci kaso bi lan lañu fi daw hôpital kaso bàmmeel bërëb dem fekk fa ki ak ki gën doomu aadama du daw ñetti barab yi du tooñ nag waaye du daw ñetti barab yi hôpital kaso bàmmeel képp ku dox ci yoonu yàlla jàppal li ñetti yi yaa ngi ciy dox ci diggante bi lan la ñuy daw ñun lan lañuy ñuy daw lu ñuy daw bay daanu kii moo ñu moom wala moo ñu mën ki yalla la wala yonentu ki lañ ko yoni ci ñun wala iblis la wala war nañ mëna sétan ci ca dëkk lëmb ñu japp Ousmane Sonko di diko def yu melni dëkk bi ñu yëngu kenn du yëngu ñi def lu leen neex dëkk bi dem ba fàtte seen force force reste au peuple légui dëkk bi yëpp di wax force reste à la loi bu njëkk bi ñom dañ doon wax force reste à la loi peuple bi nan force reste au peuple xare xeex xeex ba tay ji peuple bi légui ñoy wax force reste à la loi ñu jàpp ñu dañu lupp yóbbu ci benn justice boo xam ne très instrumentalisé ñun ñëpp xam nañ ko justice bu ñu ger bu ñu jënd fu ay jaam kese des gor yi néew fa ñu leen di bundu xatal ñun ñu dem ba di commencé di am yaakaar ci force boobu naan force reste à la loi c'est parce que y a problème wàcc nañ suñu ànd ànd bu ñu dem fekk fa borom bu ñu duggee ci justice bi fekk leen fa ñoom ñoo ko moom waaw kay dossier bi ku si néew dëkk bu mu am dafa dal ci loxo nit bu dëggu

sénégal bu yeungu may sen bay man la yalla man may sen yalla faalewuma dara respecté wu ma juge respecté ma tous limay wax moy am dama ne li nga wax nii nii nii yow yow sabasi sabasi fay du fi amé ma xol luma neex ma def confisque victoire sénégalais confisque victoire démocratie arraché victoire bi ci doomu adamay ne len dellu len fawi ñaari yoon ñu dem di jëli fiche de parrainage ñuy gololoo euh, euh, euh, représentant Ousmane Sonko ba léegi duggul biir DGE ci buntu ba lañ ko arrêté ab gis gisu moom kooku mënul gis sax non mais graaw naa mais dëkk bi am na problème ah mais gars yi histoire bu ñuy nettali moo dëggul xanaa sañu maam yi ay tàppat la woon moo tax man nit yi bu ñu wax na ay jol la jor ay tàppat lañ woon ay américain ne samay ay tàppat lañ woon ay balu ginnaaw lañ jot mais dafa mel ni dafa xaw na ko ah. mais ñoo seen dit yi nous taxaw fi que Macky Sall waxam sax mu di leen ñu tok diko Il y a problème ci neela nek ci biir ay policiers gendarme arrêté représentant Ousmane non non non caméra non non non muy comme ba parrainage ba parrainage et l'agent judiciaire de l'État n'a toujours pas introduit son recours au niveau de la cour suprême ba suñ jonn yàlla tey recours boobu duggul mais nanguñu jox ko waa ji parrainage ndax lan Macky Sall man maa moom réew mi maay bàyyi réew mi fii ku yëngu maay sa baay Macky Sall loolu la wane de ku fi yëngu sa baay boo ko weddee dama laaj sa baay dama fee tere manifestation boobu la fi gëj am ma tere rassemblement boobu la fi gëj am lu ma fi tere mooy am man maay seen baay man Macky Sall le père de la nation nañ ko wooyee loolu c'est le père de la nation moom fii ku fi taxaw mooy sa baay dëkk bi ne salaw Nous confisquer victoire jàmbur et pourtant l'agent judiciaire ba léegi déposé wuñu introduire wuñu recours les ñun dañuy xaar Mouy muy kaka di day di di toiletu ñu toog di ko xaar quoi Ousmane Sonko nekk ci kaso bi ay turam nekkul ci liste électorale bi ñuy xaar buur muy soccu ak tufli bu doon sax dañ ko dañu qui savent si bu mu wax ñu nañ en attendant agent judiciaire de l'État état di introduire seen recours ba muy dem cour suprême en attendant ñoom ñu wut seen parrainage jox leen loolu mooy dëgg boobu bu ñuy attewaat leneen mais comme atte boobu moo fi mujj nañ leen jox ate boobu nangul leen ko gañe nañ en attendant ñi yegg cour suprême ba cour suprême di attewaat leneen ñu doog koo def non defuñu ko ñoom dugaluñu recours nee nañ ordonnance bi buñ ko publier depuis mercredi par le saaba si le même jour Sabassi nee na delloo leen soo Sonko ci list électorale yi te ñu jox ko ay fiche nañ ko ko jox. en attendant vous continuer seen cinéma étatisé depuis lors qui est xam agent judiciaire bi ak avocat l'État état bi ñi ngi ñi ngi leur offense contre offense ba léegi Sénégal yëpp di leen xaar cay mais ñii ay buur lañ Sénégal vrai monarchie la ay vrai buur donc. du yow juge bi ne kii moo jox joxagum leen ko en attendant ngeen di dugal recours ñoom dugaluñu recours delloowuñ ko ci liste yi dara ñoom ñu ngi toog di toilette. Macky Sall jël leen seen temps dix jours la waaw mais dix jours yooyu dañ leen waroon jox dañ ko waroon jox juge bi lu mu wax waa léegi juge bi ah euh, saaba si coow loolu. atte googu ban njëriñ la am kon gars saaba si ban njëriñ la am léegi atte boobu ban njëriñ la am. kon loolu ñun dem Ziguinchor yëpp waa Ziguinchor sonn nekk ci naaj bi mu metti loolu ci ñoom ñu taxaw ñaq maire yi di way ñi nekk di résister di régisté di résister suba ba guddi saaba si di rey boppam ñuy kuppe ay courant di couper électricité bi di ko menacer di ko woo di ko xabtal naan dañ lay kii dañ doo gënañ la saaba si daj àdduna ak li ci biir lépp pour pour àtte dëkk waa Casamance peuple bi taxaw di résister suba ba guddi saaba si acte dëkk Macky Sall jël sànni ci poubelle bi ne samay avocat ak samay agent judiciaire jël leen seen temps soccu leen ba seen bëñu weex faalewuñ lu saaba si de toj ci toj ci leen dëkk bi napp naa leen ba pare dootuñu yëngooti fii yëngu du fi am ku dootuñu yëngooti moom toog di def lu ko neex kon léegi euh, avocat wu état bi ak agent judiciaire bi ñoom ñu recours dix jours yooyu Ousmane Sonko day toog ci kaso bi di subir duñ jox wa ñoom Ousmane Sonko seen parrainage te ba léegi waa Ousmane Sonko yi ñu ngi xaar parenage ba léegi. gis nga ki nga xam ne dañoo atte mu toog day ci atte bi muy Macky Sall kooku mooy toogaat di xaar ba ay fii ak dix jours mun nañ def sax quinze jours mënuloo leen dara parce que doo xeex donc mun nañ toog dix jours lañ leen jox de mun nañ toog ba quinze jours doo ko dugal recours. te boobaa wala 10 jours ñu dugal recours ñu dem cour suprême cour suprême jël affaire bi ne day xaar décembre suba la sama gars un mois moo fi des ñu ngi ci fin octobre novembre début décembre dans un mois et quelque kon bu cour suprême nalawee diggante deux mois et un mois et quelque bi ba ba attewul mooy Ousmane Sonko amul parrainage kon demul kon Macky Sall éliminé Ousmane Sonko sans xeex sans dara sans dara

lool da lañ ko bëgg a dóor tëgg wëndeel nii daf li ñuy def jouer jouer ci suñu mental jouer ci suñu temps jouer ci lépp nax tëgg ñu wëndeel ñun ñëpp ñu taxaw di xool mais mbir yi doy na waar ah. mbir yi yéeme na man bu ma gisee ay nit naan non Ousmane Sonko lii jaru ko mi sénégalais mérité wuñ ko xanaa doo sénégalais xanaa doo sénégalais man man mënu ma wax loolu je peux pas dire les gens le méritent pas non non non bu ko def non. une patrie se compose de morts qui la fondent et de vivants qui la continuent Le peuple bi décidé wor grave nañ la wor mais yo, dafal li nga war a def te loolu laa gëm ku ci mission sur terre soit nga accomplir ko wala nga trahir ce mooy dëgg boo ànd ak ay nit ñu trahir la ñoo la trahir mais yo, mu le et l'histoire retiendra que trahir waruñu mën a toll foo xam ne nit yi dañuy toog naan Ousmane Sonko lekkal ba suur naan ba màndi sénégalais mérité wuñ ko pourtant sénégalais nga sa papa sénégalais la sa yaay sénégalais bu ñëpp defoon ni yow def noonu kon affaire yi dina sotti kon war nañ góorgóorlu ñun ñun war nañ góorgóorlu war nañu yokk Pastef ci li ñuy def war nañ yokk fulla ak fayda ci li ñuy def war nañ yokk jom ci li ñuy def mu jaral ñu ko parce que nit yi nga xam ne Macky jàpp na leen toroxal leen tëj leen ñu ñoo ëpp fulla Macky Sall ñu gën a toroxal ñuy gën a bëgg yéen jommiwu leen ak li Pape Alé daj ci loxoy Macky Sall ba léegi tey la gën a Pastef tey la gën a mën a jaayante tey la gën a tey la bakkan ci xottu gerte tubaab sax moo ñu gën a wan ni moo ñu gën a tubaab ab tubaab ab tubaab mënoon nañ ko fi rey sénégalais buñ meloon ni Juan Branco dëkk bi tekk na dëkk bi tàng jër ñuy menacer Juan Branco de mort di ko menacer d'extradition di ko menacer ne dañ koy jàpp mandat d'arrêt internet Juan Branco ñëw ne leen maa ngi nii boo leen day yàlla taw leen xal boo leen day yàlla taw leen bu ñu lekk boo leen ma mënee lekk lekk leen ma ngeen ngeen ngeen sandis ma ab tubaab bu def loolu ñëw jaayante ko laa la jox Macky Sall boppam di ko gololoo di ko dawloo jàpp di dugg fii dugg fee ñuy dàqe muy dëgg ba xoolal dafa ñëw taxaw affronté leen ñu ñëw jàpp ko dawul benn yoon joowul benn yoon ab tubaab boo xam ni maamam juddoowul senegal ay juróom-ñaari maamam juddoowuñ Sénégal kooku moo ñu gën a bëgg ñun ñun suñu dëkk tubaab moo ñu xeexal léegi tubaab yi dañoo doon jàpp jaam léegi tubaab yi la nit ñuul moo ñu jàpp jaam tubaab yi dañuy libéré ñun war nañ xool suñu bopp de tubaab yi ñoo doon jàpp suñu maam yi jaam léegi nit bu ñuul mooy jàpp sénégalais yi jaam tubaab yi di leen ñëw di libéré. loolu mo tax mu xwan Branco dafa duggu ci ay avion avion di wàcc di duggu di dugg dugg gaal lu ne pour ñëw libéré ñuy japp ay nit ci kasso yi ñuy génn di ñëw di tey la nit dof gëna bëgg li def malgré lu ko Macky Sall tek ci ci touma ci coono tay la Cheikh Bara Ndiaye gëna bëgg parce que Cheikh Bara Ndiaye bu mu ñëwee ba légui mi ngi jaayante waaye yéen ñi ñii ñoom xanaa ñoom dañuy duggu ci kasso bi ak daj ay musiba yu ne Macky Sall tek di gëna bëgg réew mi dañu gën a bëgg fonk xeex bi Cheikh Bara Ndiaye bu génn bu ko neexoon génn toog noppal boppam Juan Branco bu ko neexoon du fi ñëw Pape Alé Niang bu ko neexoon toog te croiser ay loxom nit toog bu ko neexoon noppi ci jour bu mu génnee la dugg ci studio commencé di def di kaas ba léegi nit dofa ngi yuuxu di wax bàyyiwul benn yoon waaye ñun ñu nekk fii di lekk ba suur di naan ba màndi toog rek di xool di xoolante di xoolante ay bët ku nek nan commencer commencer xex nit bu nan commencer lu ko xex nit bu tok nan gi xoma dóoral ma dóor ku do duy xex dóoral ma dóoral ma dóor dóoral dama sa yoon duñu xex xex amul dóoral ma dóoru mi ngi bëgg ëpp mi ngi bëgg a lan lañu xaar Ousmane de hein ah? Ousmane mi ngi résister ñoom Macky japp ñi ngi résister mais lan lan ñun ñu toog rek di di naan dañuy xaar ñan ay loi wala ni ma ko waxee woon la ko Pape nga Pape Demba Demba Pape Demba Touré waxee nee naa leen gars yi kañ la Sénégal peuple bi dem bañ basculer ko Ousmane Sonko ngi xeex ak Macky Sall Ousmane Sonko wut ay avocat pour ñu xeexal ko ci justice bi. Macky Sall wut ay avocat pour ñu xeexal ko ci justice bi ñun justice populaire bi ñu bàyyi sañu ànd dem di lijjanti justice jàmbur yi <laughs> loolu laa leen waxoon moom la leen dem ba Touré wax même chose mel ni koo xam dafa déglu samay laay man leen ñun am nañ problème peuple bu dem bay am seen justice populaire ne ko fa ñu ko ne yàq bu naqari di lijjanti justice jàmbur yi man Sonko soxlawuñu comme avocat soxlawuñu comme avocat. Sénégal yëpp a ngi lijjanti loi kañ la leen Ousmane Sonko yónni ngeen ngeen koy gérer ay loi L52 da ngeen a wàcc seen ànd da ngeen a daw seen responsabilité loolu moo tax ngeen mujj ci loi wu jàmbur yi. loi dafa am ñu ko jàng dafa am ñu fa carrière rey fa seen bopp bàyyi leen leen ak seen i loi yéen da ngeen am luy justice bu ñu leen néewalee doole toroxal leen fitnaal li ngeen taxaw génn de des milliers dans les rues rajaxe xeex ba naaw ba taxaw ba seen i ñaq. loolu moom mooy seen ñu kooku xam ne hey gars yi jaaroon nañ fi ravage tactico technique bopp boyal fépp rajaxe fépp ñëw taxaw ak ñàkk mu xool xool xam ne ñii ñu am fulla lañ ne justice bi lijjanti seen bopp avocat yi Ousmane Sonko wut na ay avocat mi muy demal ay justice lijjanti ko Macky Sall la ngi xeex ak Ousmane Sonko Ousmane Sonko ngi résister le peuple doit résister dans son intégralité ñëpp dajaloo ñu résister ñun tamit ndax ñu ngi subir ay oppression yokk nañ courant yokk nañ ndox yokk nañ gaz gaz baa ngi rey doomu aadama yi di exploser njaboot yi di dee sénégalais yi génn di jooy noonu Sénégal li fa mën a am te kenn du yëngu boo yeewu ñu ne njaboot gi am na deux yi dee gaz boobu explosé trois troisième bi dee ay eh waay Macky Sall dimbale ñu waay ay eh waay Macky Sall gaz bi dina rey nit ñi de tollu gaz bi reyaat ñu ne six waay eh, Macky Sall sixième personne bi dee ci biir kër ga jooy rek eh Macky Sall lañ dimbale gaz yi kii bu gën a doomu aadama tëll ñu ne famille ba onze dee nañ ci papa dee yaay dee frère dee liir dee rakk dee dëkk bi te salaw pour ñoom laalu leen te gaz boobu dañuy exploser seen biir kër yi deuxième mu rey ñeneen non mais ñoom pour ñoom bokkuñu ci ñoom Sénégal concept bu muy demee garaaw na reyal ñëpp tant que laaloo ma garaawut tant que dalu ma garaawut te kër gi mu dal te defuñu dara yàlla mu dal leen noonu la lu mën a dalee kër gi toog ci wet gi di seetaan dégg tëll ne ah ñee la rey noonu gis nga lu leen rey te yàlla defu ci dara ab gaz la noonu eh, loolu bu doon France ma ñàkk sama nday benn gaz explosé ci ab kër giriñi wala fu mu mun a doon wala korobe eson ma ñàkk sama nday rey onze personnes billaahi giriñi tàkk barki Seydina Muhammad boo doon dem France tey jii ab gaz rey onze personnes rey deux lendemain bi rey trois rey quatre rey cinq balaa moo onzième laa wax gris bi yëpp génn di takk dóorante ba naaw barke alko gaz yi la ñuy dajale ci mbedd yi indi leen gaz yi di taal gaz yi di rajake dóor ba France daw ñu ci retraité jëlaat gaz yëpp retraité gaz yëpp commencé koo xool mais dëkk yooyu ñoo am fulla parce que bakkan dafa foor foofu noonu mais ñun comme ay bakkanu xaj lañ yoroon comme ni ñuy reyee muus yi comme nu ñuy reyee kaña yi ñun ay bakkanu kaña lañ yor ñun ay ruu kaña lañu yor ñun dañuy rey comme deew kaña dañuy rey ay rey yu ñaaw ay rey ni ñuy reyee kaña lañ ñuy reyee ñun ñu toog di xool jàpp kenn dóor koy brique ba mu sedd ñu toog di xool fay xam nga ni foofu bakkan dafa foor loolu mënul am ci dëkk yooyu noonu xoolal ñu toog mais Sénégal dañuy bàyyi nit yi di dee la mal est trop profond gars le mal est trop profond trop trop trop profond au moment où université ñu tëj ko lu tax ñu tëj ko dam leen laajte lu tax Macky Sall nee na bu ko ubbee étudiants yi bu ñu ñëwee dañuy créer ay front te mun na indiwaat révolution ñu génn ci mbedd yi di xeex front populaire boobu lay daw mu ne du ubbi université tant que élection yi jeexul ay waay ndaw moom doomam bu jigéen mi ngi Amérique di jàng doomam bu góor mi ngi Amérique di jàng doomu Mansour Faye jàng na ñenn ñi mu ngi ubbil leen jox leen ay milliards ñu ngi yor ay nag yu nganda xoolal jënd nag yi newoon fii yëpp yu ñu tubaab yi joxoon wala yu ñu projet yi joxoon di def seen élevage seen doom yaa ngi fii Ottawa seen doom yaa ngi fii di jàng ñi ngi si ak boo duggee fii nii demal Canada ci université haay yi seen doom yaa ngi fa barke alxuraan jàpp ñaax ñu leen di yónnee ay millions man xam naa koo xam ni moom la ñuy yónnee xaalis booy dem di ko fa jëli booy bu ñu ñëw di jël xaalis foofu booy oto yu ñuy dawal la ilaha illallah da mus naa cee wax ak doomu doomu Seydou si Seydou Seydou Sow Seydou Sow ministre xale bu jigéen bi ñëw daal waaye moom day jàng appartement la ko bàyyam jëlal fi ngan tam maami la ko bàyyam jëlal mu ne day jàng oto bi nag 4-4 bu tooy man sax xaw ma kii mu ne ma zéro kilomètre laa ko jëndee ma ne ko zéro mu ne ma zéro kilomètre mu ne ko zéro mooy du xanaa da nga kii emprunt euh, euh, euh, emprunte la kii mu tuddati Euh, kii euh, kii bancaire yi mu ne ma non cash doomu Seydou Sow xale bu ndaw man ne ko ñaata at nga mu ne vingt ans <laughs> man sama bàyyi moo ñàkk jom sama bàyyi ñàkk fayda laa ilaha illallah non xaw ma man maay xaj xaw ma maay doome xaram xaw ma man sama bàyyi liggéeyut man maa ngi wax prêt bancaire mu na ma zéro kilomètre oto baa ngi day ni indi maa ñool ñu kooku mu ñëw war a jël encaissé de centaines de millions appartement high high level barke alxuraan man ma xool ma ne man moo tax des fois damay toog ne Sénégal des fois mu ne man nu tax ma juddoo fii quoi xarab xooli li man lan laa des fois ma toog ne man lan laa def yàlla ba mu tëmbal ma Sénégal quoi mu tëmbal ma maam Sénégal quoi loolu moom mooy ta xoolal yéen ñeneen ñi dama leen may sax chance pour nga xamni pour ñu dugg aljana dafa yomb mais ci ginnaw ndare baba ndare boda ba la la da dang kay commencer di xuus jaayante dafa am top di shine billahi na may man lan la def bugu na xam luma def ba yalla sànni ma ci jaxanama ji ni ma war a à zéro te koku nonu papam mi ngi top di tooxal sénégalais yi di tuula ka fenn doomu mi ngi fi beneen doomam bi France la jàngee ñun ñu tëj seen université yi ñoom seen doom yaa ngi fii di jàng appartement meublé tout lépp lañ leen di jox argent de poche liquidité alal gu ne gàññ te seen bàyyi laa la wax da doon rat rat soow di rat meew di ko sotti ci ci cere ji di di dërëx barke alxuraan nee naa leen Seydou Sow enseignant la enseignant primaire kere la doon yore kere ardoise i o a ca Kaffrine daa nga yore benn moto bu ndaw Seydou Sow moto barke alxuraan milliardaire ay doomam a ngi fii di jàng nee na appartement tout des centaines de millions oto rond lu euh, zéro kilomètre cash Seydou Sow day moo doon rat bàyyam ñëpp xam nañ ko Kaffrine ay xarak ay bëy la yor assistant enseignant primaire yore moto <laughs> doom bi bu yore loolu kon Seydou Sow lan la yor ay appartement la jënd France

mus ngeen dugg ci école privée yi fekk fa doomu ministre Sénégal mus ngeen dugg ci école prive pri école publique fekk fa doomu ministre mus ngeen dugg école publique fekk fa doomu euh, euh, autorité de la république seen doom yëpp a ngi fii di vacances ay naaw kuun di récupérer des centaines de millions des fois ma laaj kooku mu ne ma non doomu xaw ma tel mooy ñëw fii ma ne ah waa instant am ma la aw ma change de Le ministre tel fi 17 millions 17 millions billahi. 17 millions la joxe Vous papa 17 millions mom vous ko wara jox fi dollar xalé ndaw 17 ans 18 ans ñu wara récupérer 17 millions ci waji leen defal échange nga xam du jaar du jaar fenn liquidité récupérer 17 millions boy Vous dem parti ji ko yor bu toy la fay jël 17 millions yu compté dollar canadien tac dem na billaay nekk seen seen seen seen appartement yi di tóorante seen far yi ñamante laalante def ay quelque cours virtuel taxawaalu ñëw dem càpp-càpp xoola après nga dégg la ñuy nañ Paris vacances nañ nangam laaj leen di Sow ñaata la fay pour doomam yi photo ak Messi bu mu nekkee Paris laaj leen Seydou Sow seen ministre ñaata la fay Messi pour doomam yi photo Paris Saint-Germain mu dugg ba ci biir gradin ci biir dañoo dafa fay pour doomu bu góor doomu bu jigéen baaboo ak doomu ñu fot ñu fotowu ak Messi xale yi génn ko dem di ko nappaate suñu doom yi Messi ngi ni Messi sëñ foto xoolal Messi ngi maa ngi nii laaj la ñaata la fay ñun ñu yàq la lañ ñun ñun ku ñu juróon yërëm ñu ku ñu juróon yërëm ñu tëj sañ université yi tey étudiants yi di woo di woo seen moromu étudiants yi ne dañuy def rassemblement ne dañuy def dañuy waxtaan pour ñu ubbi université yi ñu jàng parce que politiquement warul tax affaire politique warul tax ñu tëj université université mooy temple di savoir université mooy temple di savoir kenn waru ko tëj Sénégal rek la ñuy tëj université waaye yéen ana kilifa diine yi lu tax duñu wax ci université buñ tëj wala jàng bokkul ci diine jàngum xam-xam bokkul ci diine wala ñoom seen yoon newu ci man de bu ma doonoon kilifa diine Macky Sall tëj université ma ne ko sa waay ubbil université yi ni di jàng say doom nekk ñu fi say doom maa ci kaa bi di jàng xanaa ñun sañu doom yi baaxul foo yàlla bindal la tiyaaba ne la ah au moins xeexante nga ak ki nga xam ne dafa noot askan. wala loolu bokkul ci seen bokkul ci combat bi bokkul ci combat bi de wala ñun ngi koy le ana kilifa aada yi Sénégal lan la rafle lan la rafle ñuy tëj suñu université yi nii ndax ay waxu politique ay ay non non duñ ko ubbee parce que buñ ko ubbee booy buñ fa dajaloo dañuy mën a def front booy yëpp ñu ngi leen jàpp booy yi yi eh, gars yi ma wax ak étudiants yi balaa maa dem étudiants gis nga xeex bi seen xeex la de boo leen yaakaaree ni Macky Sall bañ leen ubbil université bi ngeen toog seen kër yi ngeen xool da ngeen di torox booy yëpp daw nañ fu nekk nii li fi am ci ay professeur étudiant ak professeur yu daw jaar ci yoonu Nicaragua bi ñi jaar ci gaal yi gis ngeen gaal yi ñi muy tëmbee Espagne laaj leen ñaata enseignant ca ne laaj leen ñaata professeur fa ne université même boo yu fa dem tey ku ñu laaj ñu leen daw na boo yu fa daw ñu di wooye yéen génération sacrifiée ñu woo leen defal leen affiche matu leen fa cent personnes est-ce que yéen respecté ngeen seen bopp yéen étudiants yi nekk Dakar point de presse bii affiché nañ ko partout partout ña fa demoon matuñu san kon san étudiant ñoo am ñoo am Dakar point de presse bi tay la woon à 10 moo tax policiers yi teel leen a gazé leen jàpp leader yi yóbbu affaire ba jeex yéen wala da ngeen seen bopp wala yéen toox ngeen bëgg bëgg leen réussir. wala yéen da ngeen bëgg a toog di xulle di naan ci taxawaalu naan air nangu leen jàng xeexu leen pour seen université yi ba ñoom seen doom yi ñëw jiite leen loolu ngeen bëgg loolu ngeen bëgg taxaw ñu ñuy sacrifice seen jàng di sacrifice seen i étude ngeen toog di xulle doo leen seen bopp ba ñoom seen doom yi ñëw jiite leen wala da xaar Ibrahima Sall ñëw jiite leen suba ngeen mag mu mag après mom mu génnee fé or génnee ci université yu mel noonu ak ay diplôme ñoo di leen jité loolu ngeen xaar di leen di wo ci lo xamni pour sen intérêt la sen jëriñ la mënu leen fa mat même pas 500 personnes té nan lañ ko c'était bien organisé université Dakar nañ ñëw nañ ñëpp rassemblé wu ñu def point de presse wax nañ ubbi université bi def affiche bi promouvoir ko temps bi na ñi nekk ci région yi ñu ñëw ñu mëna ñëw nañ ba étudiants wax nañ dañ leen di passal ñu mëna ñëw nañ ñu leen ñi région yi fa point de presse laaj leen ma yan région fi yëngu laaj leen ma ko waa def point de presse ñu fekk leen jàpp leen yóbbu nañ leen waa Jurbel génn ñoom euh, euh, fexe nañ ba kenn jàngul tey waa Mbuur kii moo leen boole ñoom ak ñoom ak xaj bu dee bii ngeen xam ngeen ko nga xam ni moom mooy bañ étudiants yi ñu ubbi université yi mooy bañ ubbi université yi pour moom waa Jurbel jàmbaar génn nañ au moins paralyser le système scolaire tey waa Kaolack génn jaayante ñu jàpp yeneen yeneen ñeneen ñi toog noonu ko même Dakar deux cent personnes mais gars yi am leen ful la nit yi nag mënuñu leen kën a bëgg seen bopp on ne peut pas être plus ñun bu ñuy jàng jàng nañ te bu ñuy jàng grève nañ te bu ñuy grève xeex nañ kenn jiituwuñu fa màgget seen ay doomam nekkuñu université sàcc na suuf si yëpp ay doomam nekk ñu université moo leen di xañ waa Kaolack ñu ngi nii jàpp nañ leen commissaire yóbbu leen commissariat Ndorong plus de neuf personnes waa mbuur yi ñu jàpp leen ñoom Maguette Sène ak xaj bu dee bii nga xam ne moom moo leen boole mi ngi nii kii moo leen boole te kii garde rek la garde Maguette Sène a ko fa indi kii garde ab garde kese kese kese Maguette Sène a ko fa indi moo boole waa muur yi ñu mu xàmmee gis nga combat bu amee kenn ku trahir rek baaxut moo tax ànd ak tàppet wala traître yàlla nañ ci yàlla muccal yàlla nañ ci yàlla musal baaxul ci àdduna du la rey mais da lay reylu suba nañ defi lii nga ne waaw booy am nañ groupe bu ñu waxee loolu ñu am na ñu bëri ñu wax waaw free ikaat free ikaat suba lii la booy dem ñii jël ay kalandoo ñii car rapide dajaloo fa mat Moussa ànd ñu nekkoon ak ñoom ci groupe bi naan woy suba free ikaat suba na ñëwuñu loolu fu ñu ko teg moo tax ma ne la tapet ak traître yàlla nañ ci yàlla muccal yàlla nañ ci yàlla musal yàlla buñ gisante ak ñoom ci yoon yàlla buñ bokk ak ñoom yoon loo bokk ñoom ñu trahir la loo bokk ñoom ak tàppet baaxul ci kaw suuf suñu xeex bi yàlla buñ ci dajeeg tapet yàlla buñ ci dajeeg kuy trahir Cheikh Mbaba Diop la tudd ab politicien la Cheikh Mbaba Diop coordinateur de maire Mbour maire xaw maire xaw maire et agent Koudou, agent Koudou, la en connivence avec les agents de la police mu arrêter lu des étudiants de Mbour Tout le monde noonu ci université bi tey kii moo leen boole Cheikh Cheikh Mbam Mbam Xuux Diop mi moo xamé boy Mbour yi woolu policiers yi japp len. xam ngeen ni boo leen ñëwoon mat 6000. cinq mille étudiants est-ce que kii mun na boole waa Mbour boo leen matoon tey étudiants yi nekk Dakar yëpp sama jarbaat a ngi ci samay cousine a ngi ci wala étudiants yi amul étudiante man dama damay xëy rek toj barki alxuraan naa xëj rek toj waay joy xaw lan la mais mais saa waay am na peuple yoo xam ne di leen xeexal jàppal ni quatre-vingt-dix pour cent sacrifié nga di leen xeexal jàppal ni quatre-vingt-dix pour cent sacrifié nga <laughs> voilà c'est quatre-vingt-dix pour cent moom bindal boo nee da ngay xeexal Sénégal sa xeexal Sénégal neel yàlla jox naa la sama ruu àdduna ak àllaaxira lu ma dal bàyyi naa la sama bopp damay xeex nag xam naa peuple bi mais garaawul amul problème lu ma dal maa ngi muñ point loolu moom signé ko yàlla traité ba pare nag nga xam ni yow yaa ko si ak yàlla parce que xam nga ñu ngi signé xam nga peuple bi nga amal affaire du dara ci ñoom pour ñu lem lekk seen ceeb fàtte la du dara ci ñoom nga wax ak ñoom dara ngeen seen traité suba ñu bàyyi la nga dem ñu jox du dara ci ñoom ñu jàpp la duñ ci jox ay jéego du dara ci ñoom ñu jàpp la duñ ci wax du dara ci ñoom ci jàpp la ñu fàtte la kon booy siyee da ngay siyee ak yàlla am ci détermination boobu xam ne dara la arrêté ndax sànq yaa ngi xool yàlla suñu borom subhanahu wa diggante yow ak moom ci combat bi nii da nga ciy nekk kaay nañu yokk ful la yokk fayda nañ dimbalante nañ bàyyi di trahirante nañ bàyyi di warante bu xeex jotee nañ ko jóg ñun ñëpp defandoo ko nañ bàyyi bu ñëpp jóg di xeex ñu toog ci biir kër yi di trahir ak a tra bàyyi ba nga xam ni bu ñu néewee doole ñu noot ñu fitnaal ñu tey ci nga bokk ndax boo ñëwoon sa morom ñëw bu ñu bëree du ñu mënal dara. sama maam doon na wax nee na ma benn bant bale baaxut ma ne ko maam lu tax mu ne ma day neex a damm mu ne ma bu bant bale ya dajaloo ba mu mat sëkk ba say kenn du ko damm. mu ne xeex boo fi gis ndam benn bant bale munul bale ma ne ko maam li bale mu ne ma ay bant bale la ñuy dajaloo ba mu bari takk leen dañ koy takk takk leen mu doon say mooy bale ma ne ko lu loo jubli ci wax mu ne ma dama la bëgg xamal ni bant bale yëpp dañuy tolloo nuroo ànd say liggéey lu rëy kenn bu ci roccee benn dañ koy damm bu rocceekoo ci bant bale benn kese mooy des xale yi dañ koy for dammate ko kii ñëw secretu kii ñëw nanga parce que lan dafa rocceeku ci ful bi moo tax ñu ne mën a ko lu tax loolu mu ne moom loolu moo tax ñuy takk bale bant bale yi ba mu doon say boo ko sayee rek di nga ci mën a liggéey di nga ci mën a bale di nga ci mën a dóor dañu nga ci mën a xeex dañuy demee say nañuy demee say nañuy bàyyi di trahirante nañuy bàyyi di bàyyante ci ci xeex bi nañ bàyyi roccante bi rocc rocc bi nañ bàyyi matt ëf nañ bàyyi dugal bopp ci làmmiñ nañu ànd xeexandoo ànd sëqandoo ànd sëggeendoo ànd sëggandoo xeex sëggeendoo ànd am ndam te bàyyi di warante ak di bàyyante ak di ànd ak nit di joxe sa kàddu di rocceeku di ko bàyyi ñu koy sacrifier kon di wax étudiants yi seen destin mi seen loxo ñi leen jiite seen doom yi nawuñu ci université yi nekkuñu ci école yi dama ne bu fi dara doxati Sénégal ci mbirum école dajaloo leen ngeen génn commencé nag di commencé di dem au front di xeex benn école waru du fi jàng du public du privé commencé leen di génn di dajaloo di destabiliser di paralyser système scolaire bi génn leen di génn élèves yi tant que ubbiwuñ université blank leen buñ leen sacrifié buñ leen sacrifié génn leen déstabiliser génn leen école yi dee leen génne école yi way grand yi non motax tax ma la grand yi jeex nañ quoi léegi dafa melni ay góoru wat ba nga fi dess tey primaire lañ doon toog di deug xéer yi tël tël tël tël grand yi jóge université ñoo doon ñew suñu grand yi ñoo neewon ay guerrier barke alxuraan luñ dajul ci loxo Abdou Diouf amul mais ay guerrier lañ woon ay combattant da nga doon école primaire rek deug ay xéer tël tël tël la la la professeur bi maître bi commencé dajale kaye yoy suñu grand yi ñëw université bu ñu grévé ci région yi la ñu ñëw région yi yëpp ñooy la ñuy déstabiliser da ngay dégg Sénégal yëpp jànguñu ñu am ay mouvement am ay mouvement gréviste di def di def ay réunion di def ay lycée Thiès ak lycée Kolda ak lycée di def ay réunion ay étudiants mais tey jii kenn xamul lii lu muy nuru kenn xamul ku la dàq nalaw nga ne ma kii la gars yi nañ am fulla nañ am fayda nañ yokk jom nañ yokk jom nañ bëgg suñu bopp nañ góorgóorlu booloo libéré Sénégal li fi am doy na waar kenn duñu àtte nag duñu bu ñu xaar kilifa diine bu ñu xaar kilifa aada bu ñu xaar kenn nañ jog xeexal suñu bopp libéré suñu bopp buñ ko munul dinañ dee ci nooteel li am Sénégal amul fenn li fi Macky Sall di def am dafa ko fenn jàpp ab réew lëmb tënk leen takk leen toog seen kaw munuñu bouger munuñu yëngu mënuñu xeex ñu wax jàpp gor yëpp tëj ci kaso yi fàtte leen fa salaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu jàpp leen ni Ousmane Sonko sonn na lool lott na ba xam dañuy toog di ko seetaan ak ci loxo makki sàll bu dee seen jom may na leen loolu ok bu leen seen fulla ak seen fayda mayee ni kii duñ ko seetaan mu koy rey ñu xool yeneen plan la ñuy def pour mun a xool nu ñu xeexee Macky Sall buñ ko bàyyee ci jàmm au moins am na fa ndam mais nu mu métti métti Macky Sall bu jàppee Ousmane Sonko xañ ko jàmm war ñu war ko xañ jàmm ngeen foog ni lii jàmm la mais Macky Sall xañ Ousmane ko jàmm xañ leen jàmm ñu may ko jàmm dëkk boo xam ne almet tàkku fa dëkk boo xam ne brique tàkku fa dëkk boo xam ne ñaari nit ñi ma wuñu dajaloo pour xeex dëkk boo xam ne ñetti nit mënuñu rassemblé mënuñu manifester wu mu xañ Ousmane Sonko jàmm mayu ko jàmm mu nekk diggante dund ak dee ngeen may ko jàmm dëkk bu amul jàmm mënul am justice pas de justice pas de paix Sénégal mënul nekk le contraire di adage boobu noonu amul justice bëgg am paix c'est parce qu'il y a de l'hypocrisie dëkk bu amul justice am paix c'est parce que nit yi dañuy dund hypocrisie kon xol yi ngi mais ñi c'est des hypocrites loolu hypocrisie dëkk bu amul justice ñëpp xam ko vous bëgg imposer paix sans justice l'homme amul ci benn deuk bu amé Sénégal c'est parce qu'il y a des hypocrites dans l'injustice ñu bëgg implanter ben paix L'homme mënul am existé wul Moy am ko waxul sa morom deug, justice paix c'est parce qu'il y a de l'hypocrisie Il y a du de Il am de amul a pas ne de résister la patrie ou la mort nous vaincrons et la mort